yàlla na yàlla sàmm la la di nuyu waa kër gi yëpp di teg seen nuyoo ci suñu mbokk suñu xarit oustaz Hassan Diouf mi nga xam ne programme bi mu yor Sidi Lamine Niass moo ko dénkoon di Hassan ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem personnel bu nekk ci fii ci Walfajiri ci rajo bi ak ci télé bi ak fépp euh, di nuyu mbokk yi teew yëpp di leen gërëm di leen sant di wax ne Cheikh na sa xel dal sànq da nga wax ne ah, da ngeen ñàkk yaay ñàkk baay waaye am ngeen loo xam ne moo gën a foor yaay ak baay mooy am ngeen yàlla ndax kër gi ki ko taxawal da koo taxawal ci taxawaay bu rëy kër gi nu mu tudd wal faj fajiri sóoratun min sóoril quraan wal fajiri benn saar la ci saari alquraanul karim kon turandoo mi ngi ci biir kaamil bi ngeen yor di ko jàng ci alquraan lool du loolu du loolu du neen wal fajiri juróomi araf moo ko composé juróomi araf yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñoo waxoon ne man qara xarfan fi kitaabillah fa loo xasru xasana nee na ku jàng benn araf ci téere yàlla bi am nga fukki yiw kon mbokkam julit boo ne wal fajri am nga juróom fukki yiw kon siidi loolu la taxawal fii kon loolu yàlla mi wàccee alquran ne inna nahnu naddalna dikra wa inna lahu la xaafisun ma wàccee alquran maa koy aar maa koy wattu siidi tuddee kër gi wal fajri mu nekk tur ci saari alquran ñoo ngi ñaan yàlla ci kaaraangeem bi ci wattoom googu yàlla na yàlla wattu wal fajri comme ni mu wattoo alquran kon man ki ma yërëm mooy li ñu wax ne ni ñu tëjee wal fajri di laajte kuñ laaj nga ne du man kuñ laaj nga ne du man mais jinne yi tëjuñu wal fajri malaaka yi tëjuñu ko nit ko tëj te yàlla xam na ko te signaalu wal fajri moo ruuxu ruuxu wal fajri man keroog biñ koy bi ñuy dagg signal bi maa ngi toog di seetaan wal fajri ma jàpp canal may seetaan ba yàgg canal dagg. moo wax seen Diouf ma ne ko waa lii lan la xanaa bu dee réew mi ñoo ko tëj kay canal waru ci bokk léegi Cheikh ñu leeral na li tax kanaal tëj ko kon ñoo ngi yëgal ni signalu wal fajiri mooy ruuxu wal fajiri xam ngeen ne ruux bu génnee ci jëmm day faatu kon ñoo ngi ñaan ñi dagg signal bi nañ ko din nañ ko indi nu mu gën a gaawee balaa balaa borom asamaan jël seen ruux comme ni ñu jëlee ruuxu wal fajiri te itam am na leneen lu wal fajiri làq loo xam ne yéen xamu leen ko muy Sidi da toog fi yor alquran di jàng. yenn saa mu yor kurusam ba pare liggéey liggéey bi sii di doomu daara la taxawal lu toll nii ci ci dëkk bi moo ko njëkk def doomu daara bu taxaw taxawal lu toll nii ci wàllu tas xabaar defal ko àdduna bi defal ko réew mi kon doomu daara yi bu leen seetaan siidi maa ngi ñaan képp kuy dégg sama kàddu ak foo ma nee ne ci réew wala bitim réew nang ma jàngal sooratul Faatiha ba saar yu jeex jàngkati xuraan yi xam ne li may wax kuy dégg sama kàddu nekk ci réew wala nga nekk bitim réew jàngal ma sooratul Faatiha ba mu jeex nga yéene ko wal fajiri yàlla sàmm ko aar ko ci barke alxuraan ñaan naa leen ko ngir jëm yàlla sii di suñ doomu ndey la suñu xarit la suñu soppele doomu daara liggéey liggéey bu toll ni kon du ñu ko seetaan ñaareel beneen bi ci des mooy ne ñii liggéey ci kër gi ràññeeku na ñëpp xam nañ leen xamuñ leen ci ay caaxaan xamuñ leen ci ay tappale xamuñ leen ci lu dëgg mën naa jël témoin yi Mamadou Moukhtar muxtaar saar fan yi passé damaa daje moom tubaa damaa demoon Touba am xew-xew bu fa am ma gis ko mu ma rek moo ko mu ma ma ne ko yow sa ni mu siiwee ak sa jëmm ku la gis day sant yàlla ndax nit ku baax ku sell ku laabir su génnee di dem nit ñi bu ñu koy seex dañ koy may yoon te fa mu nekk Touba liggéey ba mu fay liggéey ñëpp la koy defal amay ah, ñi nekk ci région yëpp di liggéey Walfadjri noonu lañ mel ñëpp leen xam kon liggéey bu toll nii Walfadjri di ko def Sénégal kon jaaduwut ñu koy def jëf ju mel nii xëy dagg signalam ci joxuñu benn avertissement wala benn këyit wala dara loolu dafa jaaw dafa jaaduwut dafa ñaaw beneen bi ci des mooy ki jiite réew mi ñu ngi koy ñaan na bàyyi xel wal fajri ndax kat ba muy sàkku réew mi bëri discours yu mu daan def munu ko moon def ertes fii la ko daan defee fii la ko daan defee fii ko daan defee kon na bàyyi xel wal fajri wal fajri du noonam wal fajri du noonam mën naa ne escalier bi mu yéeg ba àgg ci mi wal fajri ci la bokk kon na koy ñaan na bàyyi xel wal fajri na bàyyi xel liggéeykati wal fajri su leen mënta dimbale itam ñu ne soo mënta sarax ki yalwaan tamit gumba bi yalwaan bàyyi ko ak saraxam fii këru jirim la ay jirim ñoo fi nekk jirim yi fi nekk Sidi Lamine bàyyi leen fi bàyyi na leen yàlla bàyyi na leen askanu Sénégal Sidi waxoon na ne kër gi askan wi ñoo ko moom kon yéen askan wi yéen laay waxal taxaw leen kër gi kër gi seen kër la kër gi Sidi moomu ko kër gi Cheikh Niass moomu ko kër gi këru askan wi la te incha allahu askan wi danañ ko taxaw te ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo téye asamaan ak suuf mu téel ñu kër gi sàmmal ñu ko aaral ñu ko sàmm képp ku fi yëngatu sàmm mboolem këli këri taskati xabaar yi ñoo ngi ñaan Pape Ndiaye mu nga xam ne caabi du ko féete gannaaw yàlla na ci nu mu gën a gaawee ñoo ngi ñaan euh, Cheikh Baara Ndiaye yàlla na génn ci nu mu gën a gaawee li ñu soxla ci ñoom mooy ñu del si fii di liggéey liggéey bi ñu daan liggéey mais soxlawu ñu dugal leen fële ca kasa ba nga xam ne defuñu fa dara lu may tëdd ko jóg kon ñoo ngi ñaan jàmm di ko ñaanal ñëpp waaye daal ñu ngi ñaan Walfadjri daal signal bi daal na tàkk ci nu gën a gaawee ñi ko fay lu ñu laqatu laqatu lu ñu nëbbatu nëbb du ñu ay jinne du ñu ay malaaka yàlla xam ne leen ñoom xam nañ seen bopp nañ ko taal loolu lañ leen di wax loolu lañ leen di ñaan ñaanu lu ñu leen leneen lu taal leen wal fajri mu tàkk ñi ko soxla sopp ko bari nañ te fi ñu toll ñi am naqar ak tiis ñàkk a tàkku eh, signal wal fajri naqar ak tiis lañ ci am bu rëy xaw ma yëg nañ ko am déet xaw ma yëg waaye nit am naqar am tiis ci signal wal fajri bii ñu fay nañ ko taal dañ ko soxla askan wi da ko soxla kon yi ngi ñaanal ñëpp ñu nekk fii ci wal faj fajri yàlla sàmm leen te barkeel leen gërëm nañ leen sant nañ leen ñun as tuuti rek lañ doon indi ci lu nekk ci suñu xol waaye mënuñoo feeñal lépp waaye daal li may ñaan mooy jàngalekatu xuraan yi law sëriñ daara yi sas naa leen ngeen delloo si di Lamine Njukkal liggéey bi mu liggéey Sénégal ñaanal leen ko jàngal ko yàlla tabaraka taala yéegal ko ci aljanna yi gën a kawe kër gi mu fi taxawal yàlla sàmm ko ci barki suratul fat wa sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa ashabi ajmain ngeen baal ñu ak jërë ngeen jëf euh, euh, kilifa gi euh, tàccu leen ko bu baax a baax ndax dellu na ci ni ñu lay taaye wal fajri ba mu yegg si fii tey ak euh, li tënk euh, baatu wal fajri nga xamante ne tey euh, xëy na mun nañoo couper signalu walf waaye nag loole mënuñu ko dakkal ci àddina ba tax na ñu ngi koy jaajëfal bu baax sàkku na ci kenn ku ne ci sénégalais yi ñu fexe ba itamit ñaanal Abdoulaye ñu may ñu rek mhm. waaw Oustaz dafa am euh, koo xam ne waroon na euh, nekk ci jotaay bi euh, mu am ngàntub mën a nekk fii ci jotaay bi ñu jël ko par téléphone muy Serigne Ahmad Khalifa Niass moo bëgg a wax ak yéen ay kàddu yu gàtt ci téléphone. bisimilah. kilifa gi ñu ngi lay teewlu. waaw mbooloo mi ñuy déglu asalaamaaleykum